nee na moom nag dafa am mbégte nee na nag te di ci sant yàlla bu baax ci mbégte bi nee na ndax politique du lu yomb nee na dugg ci nag ba génn ci yàlla may la ci ndam nee na jar na sant yàlla nee na loolu war na tax kenn ku nekk ci nee na war na tax kenn ku nekk ci ñun. nga am fierté. nga am fierté. ne bu la neexee daagu ci Sénégal. nee na xam ne bu la neexee daagu ci Sénégal ak bitim réew. nee na te xam ne ka ngeen àndaloon. di wut réew mi. la mu dige woon. def na ko ba def ci borom. nee na loolu. nee na moo tax bu kenn am métit ci boppam nee na moom nekkatul président dematul naa ndax nee lii di mbégte li ak tiitër bi ak bu may dem nee na bu dee dem jël caabi ji nee na jël ko waa loolu nee moom la war a taxaw nee def ko def ko ngir Sénégal. nee na ngeen def ko nag ngir Sénégal. ko ngir stabilité nee na ñu def ko ngir jàmmi Sénégal ak stabilité Sénégal. nee na am na nit yoo xam ni. bu doon seen sagol yegg na mbaa la ñu bëggoon yàlla defal na leen ko. nee na kon Sénégal ñu ngi koy compter tey ci réew yi tàkk ak réew yi am crise. ah nee na Nations Unies di fa yónnee. nee na ñu naan nan la ñuy dimbali sénégalais ak na ñu fi delloo si jàmm. nee na démb wax na ko France 24. nee wax na leen ni nit yi nga xam ne ñoo jóg bëgg a yàq Sénégal. nee na te moom mu xam leen nag bu baax. mu am ñu nekk ci biir nee na mu am ñu nekk ci biir réew mi. ak ñu leen di jàppale ci ak ñu leen di jàppale ci suuf. nee na leen ils sont lamentablement échoués. te ñu leen mës a seetaan ñu yàq Sénégal nee na waxoon na leen ni fii ba keroog muy tekki ndoomu tànkam di fi jóge nee na lépp lu fi nit yëkkati bëgg koo yàq nee na dinañ ko neutraliser dina ko digaaleen ñoom ba mu fay seen buñ nee na kon nag loolu moo jara sàmm tey ndax jàmm ji ci Sénégal stabilité bi ci Sénégal nee na développement bi ñu tàmbali ñu mën koo mottali ci jàmm. nee na kuy é réew. kuy taal ay cocktail molotov. nee na kuy saagawaate. ak di xastawaate noo koy dénkee réew. nee na ku ko def yaa ngi sa bopp yaa ngi tooñ waa